asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu di leen ziara bu baax a baax ci aljuma du sell ji di kontaan ci yéen ci topp ba ngeen topp ci Leewtoo TV ngir leen indil li gën a fës ci bopp yi ci noonu nag damay nuyu borom kër gi rek Pape Thialis Faye di ko jox wàcc waayam di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ju bare bare bare moom Pape Thialis di nuyu Mbaye Babacar ma toogal Ndeye Mbacke fay naa la wante maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokk yépp ñuy topp ci Leewtoo TV ci aljuma bii di leen wax juma mubarak Assane Waala nuyu naa la. Mm, Ndeye Mbacke fay naa la amaan mbégte jàkkaarloog internet Leewtoo TV pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. ca noonu nag danga ngeen ñuy baax dañoo benn yóbbatu daal bu ñu fas yéenee jàllale Mbaye Babacar yaa la. waaw mer ndee la yu baax yóbbante ci boroom kër gi. ah nee na kookoo njaboote ñëpp du njabootam rek mooy njabootam waaye waa kër gi waa mbedd bi ñëpp la boole njabootee. développé ma rek la mu wax comme mënuñoo wax. waxal rek xam nga olof Diagne dafa ne yóbbante àq la te maman la Fall moom mi nga xamante ne bii moom mooy présidente groupe Nopp sa jëkkër nekk fii ci CRAC daf ñu yóbbante ci Pape Thialis te man nag damaa mën ndaw ma yóbbante ku nekk dana yegg lantinoor laa du ma diw euh, maman la daal nee na wax dëgg fa yàlla group Nopp sa jëkkër yi nekk CRAC yépp ñu ngi sant ki nga xamante ne bii moom mooy Pape Thialis Faye ci taxawu bi nga xamante ne bii mi ngi leen di taxaw Thial Pape Thialis moom mooy borom enveloppe yi ci pak pak yi Pape mooy borom nagu tamxarit yi Pape Thialis mooy borom nagu korite yi wante Pape Thialis moom mooy borom suukaru koor yi nga xamante ne bii macha allah képp ku bokk groupe Nëb sa jëkkër ñi ngi koy sand ñi ngi koy gërëm di ko wax ne amuñu fayam gis nañ taxawaayam bu baax ndax lépp lu ñu xewle. Pape Thialis moo ci mën te olof Njaay ka dafa ne àdduna ñaari ñaari bés ci nekk muy xewu naqar ak bisu bànneex bis buñ ci mën di am Pape Thialis dinañ ci wone taxawaayam ba mu mat sëkk kon nag cant ak ngërëm ñeel ñeel na kii di Pape Thialis di kàddu yi nga xam ne mi ngi jógee ci maman Ndella Fall di la présidente groupe Nopp sa jëkkër. mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax ci revue bi daal la ñuy daal di desandi moo leen koy jour fii ci Leewtoo TV bañ xëyee nag dañuy jàll ci nga xam ne mooy Leewtoo point net Yakhya Diop Yékini mu ne le nombre du CNG Matar Ba à politiser la lutte. waaw noonu la ko Leewtoo point net bindee tey ci euh, page internet am boobu nee na ki nga xamante ne bii moom mooy ministre Matar Ba dafa jël lii di lii ji mel ni lu ko bëgg a politiser. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi ñu ko invité démb ci RFM matin Yékini dina indi ne fa waat ay kàndu nee ne Matar Ba dafa bëgg politiser euh, lii di làmb ji lu tax mu wax ko mu ne CNG bi euh, bi bi fi génn bu Alioune Sarr woo jiite woon vingt rek la composé woon ñu ngi doon doxal bu baax a baax a baax te loolu rek doyoon na mais bii bu bees bi dafa jël plus de mille personnes def fa te loolu day tere ñoo ñëw liggéey looloo tax daal euh, Yékini ne Matar Ba dafa bëgg politiser làmb ji. nee na ku digg ñaxtu rek mu xëcc la dugal la ci te loolu doxalul làmb ca na ko noonu nag journal suñu lamb boo mu xëyee ci xëtam bu njëkk dafa desandi ki nga xam ne mooy Yaxya Diop euh, de gens qui ne font mel ni euh, Yaxya Diop ci kàddu yooyu la ñëwaat moom mi nga xam ne xamante ne bi moo fi nekkoon roi des arènes nekkoon champion ba nga xamante ne bi daanoon ko jafe woon na lool euh, moom nee Euh, CNG bi dafa bëri ay nit dafa bëri ay poste ya nga xamante ne bii ñan ñan fa teg defuñu fa dara wante euh, yemul foofu laaj nañ ko ci li nga xamante ne bii moom la ministre de la justice wax nee na kàddu yooyu daal ay kàddu la ya nga xamante ne bii amul bopp amul genn dëgg la Mbaye Babacar fii suñu làmb rootee la Leewtoo rootee muy euh, kii émission RFM matin boobu Yékini moo fa dikkaat di wax rek ci CNG bi lay wax le fait mu composé ay membres yu bëri nee na loolu jëmalul làmb kanam amul njariñ ñun fa def yépp dañuy toog rek duñ liggéey wax na également comme ni nga ko waxee ci sotti ministre de la justice muy malik Sall nee na wax jooju daal amul benn fondement wax ju amul sens la. moo ngi noonu nag battre Balla Gaye deux fois Bombardier va-t-il émettre Eumeu Sène moom nee na ci tànki Eumeu Sène la bëgg a topp ndax Eumeu Sène ku nekk xam na ne daan na Balla Gaye ñaari yoon te Bombardier mii le benn 52 de de Mbour dafa war a jàkkaarloo ak Balla Gaye muy euh, ñaareelu yoon bi Bombardier daanoon na ko mais nee na li mu bëgg mooy toppandoo Eumeu Sène daan Balla gay ñaari yoon. dëgg la Mbaye Babacar suñu làmb moo def interrogation boobu nee na battre Balla Gaye par deux fois. Bombardier va-t-il imiter Eumeu Sène ndax Eumeu Sène dafa daane Balla Gaye 2 deux fois Eumeu Sène daane na ko le 8 février 2009 daane na ko également le 5 avril 2015 Bombardier nag daane na benn yoon Balla Gaye le 8 juin 2014 ñu war a dajawaat ci bu euh, weeru koor wi jàllee incha allah léegi suñu làmb nee ne ndax Balla Bombardier dina jaar fi Eumeu seen jaaroon Balla Gaye. mu ngi suñu karam incha allah. ma ngi noonu nag école de lutte Balla Gaye de Elton en difficulté quel plan. pour le lieutenant de BG2. mu mel ni journal bii di suñu làmb tey dafa samp laaj. Euh, ne école de lutte Balla Gaye 1 am na ñaari mbër yu fa nekk ñu leen di wooyee Elton ak les de di ay lieutenant naa Gaye numéro 2 nee na ñaar ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe yan pexe lañu mën a teg ngir jóge ci jafe-jafe yi ñu nekk Assane. dëgg la Mbaye Babacar école de lutte Balla Gaye les 2 et Elton. en difficulté quel plan de relance pour les na de Balla gay numéro 2 noonu la ko journal suñu làmb euh, waxee nee na euh, les ak Elton daal ñu ngi ci benn zone de turbulence ndax nee na les 2 mi ngi répété ay saison quatre saisons blanches ngi nii mu koy tegalee nee na dernier combat bi mu ngi remonté le 8 euh, juillet 2017 face à Balla euh, Baye Mandione daf ko daane woon waaye depuis lors mënagul amaat beneen combat nee na Elton moom rëg-rëg moo ko mujj daane le 31 euh, mars 2018 depuis boobu moom it bëriwul nee na ñaari mbëri daal ban plan de relance la leen di proposer pour que mun ñu mën a continuer seen carrière fin de l'état sanitaire d'urgence le 19 mars incha allah la reprise des compétitions sans huis mu mel ni tey euh, journal bi dafa ñëw euh, wax ci li nga xamante ne bii mooy état d'urgence bi nga xam ne mi ngi waaj a jeex incha allah bu ci yàlla àndee le 19 mars wante tamit ñu ngi jëm ci ndorteelu jongante yi Assane mu mel ni euh, huis clos bi journal bi wax na ci. dëgg la Baye Babacar fin de l'état d'urgence sanitaire le mars. xam nga Mbaye Babacar bi euh, mbas mi duggee Sénégal Macky Sall muy président de la république dafa defoon benn dafa décrété woon benn état d'urgence loolu moom mooy def couvre-feu ay lépp loo xam ne nii da doon euh, da doon euh, propulsé wala da doon provoqué mbas mi di gën a law ci dëkk bi. léegi état d'urgence boobu nag mercredi bi passé ginnaaw conseil des ministres bi dafa jëlaat beneen dogal ñu dina ko arrêté le 19 mars looloo tax suñu làmb ne. est-ce que bu ñu ko arrêté dina permettre huis clos bi ñu doon wax ci làmb ji ñu bàyyi ko te bàyyi supporters yi wala amateurs yi di mën a seetaan làmb ji. xanaa rek te xam ne bu ñu arrêté état d'urgence bi mën naa am ñu bàyyi gars yi tamit dem ci stade yi seetaani làmb. dëgg la may baaba bu ñu ko arrêté maanaam couvre-feu bi yooyu yëpp day sauté léegi ak euh, xanaa ñu respecté mesure barrières yi sol masque yi euh, ba pare ba pare bàyyi supporters yi ñu ñëw seetaan seen i mbër ci biir euh, arène bi. loolu su amee dana nekk lu ñu gën a ñun ñiy dund ci làmb contre gàmmu Gueye de Sokh vers un vrai test. ma nga jëm ci combat bu rëy Sokh champion bi nekk écrit euh, xam sa cosaan nga xamante ne bii macha allah euh, sañ-sañ lay doxee ci làmb moom Sokh am komba bu rëy nag ci digganteem ak Gamou Gueye Gamou Gueye de mu war a nekk test ci moom nga xam ne bu ci jógee rek da koy ubbil bunt yu bari. dëgg la mbay Babacar contre Gamou Gueye 2 Sokh vers un vrai test noonu la suñu làmb wax nee na comme que euh, Sokh mi ngi jëm ci Gamou Gueye numéro 2. combat bi daal moom mooy combat bi nga xam ne nii moom mooy vrai test ndax nee na Sokh daje na ak euh, Ramdan daje na ak euh, doomu dàngu daane na Molde mobile de daane na Nandi waaye Gamou Gueye bii daal moom mooy vrai test ma nga doonu tombeur de tonnerre lagros Rose Moussa Ndoye Garga Mbossé l'espoir de Dordorat Mars Surlo mu nga noonu Garga Mbossé moom mel ni affaire am ma ngay baax gannaaw ba mu daanee ki nga xamante ne bii moom mooy tonnerre euh, Lac ak euh, musaandooy Ndoye mën nañu wax ne mu ngi ci yoon ba nga xam ne am nañ ci moom yaakaar bu baax Assane. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu toogee 5 ans amu ci benn défaite. ba pare tegale trois victoires yoo xam ne ni ay mbër yu am importance la daane daa ginnaaw bi mu daanee tonnerre tonnerre le 23 décembre 2012 Lagrose le 5 janvier 2014 ak Moussa Ndoye le 28 avril 2019 euh, suñu làmb ne ne Garga Mbossé daal mi ngi ci mi ngi marche sur na maanaam affaire am mi ngi dox ginnaaw bi mu daanee ñetti mbër yi nee na nag euh, cinq combats boo bëggee gis dernière défaite u euh, Garga il faut que nga dem ba le 13 mars 2016. contre Boy Niang 2 donc contre Boy Niang 2. moo ngi noonu booy Faye ba thème du feu attendu à Dodoraat mu mel ni dafa jógee écurie ñëw ci écurie ñu koy xaarandi. Boy Faye mi ngi noonu nekkoon écurie Seras di mbër mbër ma nga xam ne. Euh, dañ ko ràññee nag Assane ci bëre simple bi. Mhm. mu ci wane boppam bu baax a baax nekkoon écurie Seras mel ni ma nga dëgmal écurie Dóor Dóoraat. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee Boy Faye dañ ko ràññee ci lutte simple bi foofu la gën a concentré wu mu nekk fa benn ténor boo xam ne nii souvent day gagné ay gala dafa nekkoon nag écurie bàcc seeraas ci pikin waaye léegi daf ko daf fa jógee jëm écurie door dooraat ndax moom parcelle la dëkk foofoo koy gën a jege te mbër yu parcelles yooyu la gën a déggool souvent moom ak euh, Garga Mbossé ñoom ñooy ànd di entrainement léegi nag suñu làmb euh, nee ne comme que jógee na euh, écurie bàcc seeraas jëm door dooraat ñi ngi koy xaar premier combat am ci écurie boobu mu am ci ndam nee na daal war na war na baptême de feu boobu war na ko daane pour ñu pour pour mu mën a continuer carrière am foofu ci door dooraat. mooy noonu nag ca jam production lañ jëm jamaïcain tire un bilan positif. Jamaye moom mi nga xamante ne bii moom mooy patron jam production gannaaw ba mu amule amalee journée foofa ca Gambia mel nii mi ngi doon def li nga xamante ne bii moom mooy xayma yi mais bi biñ ko laajee moom daal nee na am na ci lu kawe njortam. dëgg la Mbaye Babacar Jamaye Kay tire un bilan positif noonu la ko journal suñu lamb titré nee na Jamaye da doon organiser benn euh, benn combat dimanche bi passé foofu si Gambie la doon xewee combat boobu nag mi ngi doon dox ci diggante building ak Boy Balla Boy Balla moo mujj jël ndam. am li ci carte appui léegi ginnaaw combat boobu euh, Jamaïcain nag journal suñu làmb jox na ko cadre lu mu wax nee ne moom satisfaction la am ci journée boobu bilan bu positif la ci. maa ngi noonu nag ca kañ jëm mooy Matar Ba face à la presse. ce Matar Ba moom mi nga xamante ne bii moom mooy jëwriñ ji yor wàllu tàggat yaram ci biir réew mi mu mel ni tey fa yéene naa jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi andi ay leeral yu bari Assane. dëgg la Mbaye Babacar euh, Matar Ba di ministre de la des sports moom moo war a def wala moom moo war a jàkkaarloog journaliste yi loolu tey lay am ci 12 heures. maanaam midi foofu ci ministère am léegi nag ñu ngi koy xaar ci jàkkaarloo ak euh, journaliste yi mu wax euh, fan la ouverture saison bi réellement toll war nu wax également est-ce que état d'urgence bi dinañ arrêté Euh, dinañ permettre huis clos bi di dox wala dañuy permettre euh, amateurs yi ñu ñëw seetaan ci làmb ñu ngi koy xaar daal ci point yu bëri te war na ci tontu tey ji incha allah. mu mel ni ak làmb ñu ngi koy xaar ci ay points yu bëree bëri ya nga xamante ne bii ba léegi leeragul ci boppu amateurs yi. Leewtoo dina fa teew incha allah Ndeye Mbacke fa dem dina ko couvrir lépp lu fa xewee dinañ leen ko indil jagleel leen ko. kon suñu mbokku internet yi mën nañ koo xaar lépp lu fa jógee dinañ ko am en en exclusivité fii ci Leewtoo TV incha allah. nañu ko xaar d'ici si h maximum incha allah allah dina leen ko jox. seen bëgg-bëgg mooy li nga xamante ne bii mooy suñu yitte. dëgg la ci kàddoom yooyu nag ñu ciy xaarandi ay nouvelles yu neex a neex a neex a neex ndax dañoo namm làmb ah Mbaye. waaw ah, macha a namm nañu làmb moom namm nañu ayca ayca ayca bu père père Ibou Ndiaye ñoo baay bàyyi namm nañ li nga xamante ne bii mooy ay bàkk yu neex ay touche yu neex li nga xamante ne bii mooy ay combat yu neex amateurs yi toog kontaan sañse bu rafet na nañu loolu ndax làmb dafa neex macha allah boo ko tàmmee. boo ko boo ko gëjee gis rek dalay dalay dalay dalay manqué. effectivement mu ngi noonu di leen jaajëfalaat bu baax a baax ah, mbay looy xanaa jaajëfal bu baax a baax euh, groupe Leewtoo TV yëpp équipe bi yëpp. tey damay jël sa place tey baal ma santal la. ñu ngi sant bu baax Mansour Fall le benjamin des caméramans caméraman bi nga xamante ne bii macha allah nee naa ko yow. na la ñëpp bàyyi xel ndaanaan nga ci biir ndaanaan yi anglais yëpp ngay jël ni ma ko ko waxee merci beaucoup matu jaxumpa naar sama darmaanko bi nga xamante ne bii maamam moo daroon Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul maa ngi koy béggi maa ngi béggee tamit sama xarit xale banlieue bi moom mooy euh, Fama maa ngi kontaan si moom di kontaan si Abdourahman béggee naa ko bu baax a baax di ñaanal ñëpp jaam ak salaam euh, Ousmane Diallo suñu monteur bi nga xamante ne bii macha allah l'homme au doigt laa koy woowee ay baarami or la allah lu mu lu mu lu mu monté wul man dama naan bëgguma yàlla na jàmm yàgg yal na yàlla doon jàmm macha allah Aïda eh. Aïda mi ngi noonu <laughs> Aïda bëggee nañ ko bu baax a baax moom tamit di ku baax kër gi daal macha allah waaw yaa ndeel ma jox dégg la ko sant eh, yaa ndeela sa jëkkër man nag ñoo dama leen bëgg ndax xam nga leen moo tax ma bëgg leen man dama bëgg jigéen ja nga xamante ni bii dafa fonk borom këram te ñoom dañu créé benn groupe tuddee ko nopp sa jëkkër macha allah yàlla seen jàmm yàgg Assane looy tàggatoo euh, ne Bakay maa ngi lay remercier di remercier a boole ko ci mm. moo tax tuddoo leen ko di remercier comme d'habitude waa Linguère di jox dig daje internetu Leewtoo TV ba suba ak jàmm insha allah mu ngi noonu di am contentement ak mbégte jënd ak yéen chaque jour ngeen di leen gën a fës leen jaajëfal bu baax leen jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV insha allah